daw de. waaye na mooy boo nekkul ren nekkul ren dafa am rallonge. dafa am rallonge. booy Ndiaye dooraat na mais booy Ndiaye xam nga taay il faut nga xeex moom taay pour am ci moom dara mën ci am dara voilà. taay moom il faut nga xeex. mi ngi dóor ah. xool li ngay xeex nag. waaw na xeex ba xeex ba baax. na xeex ba baax. na xeex ba baax plaqué ko dina jafe dafa njool la. waaye garaaw ma nga ca euh, attention ma nga ca. oh xoo daanu ma nga ca daanu. day daanu bañ. day daanu day daanu. xale bii. maanaam la te oh. dafa waaw ndeysaan. dafa mat xool ko tubaab ko sànq bu ñu taxawee nga xam ne daanaka taxaw. Oh. mën naa am dara de.